waaw combat ngi noonu di dox ci diggante ki xam ne mooy ñàkk jariñoo ak doomu dangu lebu bu mag bi ay gëlee lañu doomu dangu ñàkk a doomu dangu ñàkk jariñu doomu dangu ñàkk bëreeguñu xeexaguñ ñoom ñaar bëreeguñu xeexaguñu bëreeguñu xeexaguñu eh eh ñàkk door na ñàkk door na waaye doomu dango koy gëdd remise ko doomu dangu remise ko ñu ngi xeex ñoom ñaar doomu dangu defal attention. très intelligent. il est très intelligent il est très intelligent Les muy def de ko da la bëgg a jumloo doomu Il def ay déplacement toujours intelligent. Il compliqué day adversaire ba ñàkk jariñu doomu tàngu ñàkk taxawal nga bëree ay journée dem bee neex oh laa mi dem ji doy na waar da ngi daje eh jeex na doomu tàngu door na ñàkk jariñu mu daanu doomu tàngu door na ñàkk jariñu mu daanu doomu tàngu door na ñàkk jariñu mu daanu eskay ay lii lii lu mu doon yëkkati leen ko allahu akbar lamb ji baax na